émission souvenir souvenir di dalal Doudou jàng Diécko moom mooy président des amicales des amateurs de lutte bu Sénégal boobule amicale nag mu ngi am récépissé en 1981 ku ñuy duppee Ibrahima Diop moom moo fa nekkoon ginnaaw gi ñu dal di amal ay élections ki nga xamante ne rek moom mooy du Diagne Diécko dal di koy jël ci atub 2000 jàpp 2007 mu dal di wëyal boobule mandat ci 2007 jàpp 2012 naam sax boobule poste dina ko tegandi ci diirub ñeenti at ci 2012 jàpp 2016 kii di Cheikh saar du président CNG moom moo ko fa dal di wuutu 2018 nag mu dal di amal ay élection ci kanamu du mbay dal di koy eh, daan ndax fanweer rek benn ñoo dal di voté juróom ñaar ñaar fukk ya ak juróom benn yépp moom lañu ñu voteel Doudou Diagne Diécko ana lan mooy sa lien tey ak làmb jërëjëf maa ngi lay nuyu soxna si di la ziar maa ngi fii si 7TV souvenir moom dëgg yàlla lu baax la nga meema tamit ma jaale suñu xarit Gaston Mbengue nga xam ne c'est le grand promoteur mu jóge fi bërki démb rek ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla xaar àjjana di leen ko jaale di ko jaale Sénégal gépp di ko jaale mbokk làmb di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yërëm di nuyu tamit suma jigéen may mën a nduur directrice maa ngi nuyu ak képp koo xam ne yaa ngi fiy liggéey di nuyu mbokk amateur yi di nuyu ñëpp di ñaanal réew mi jàmm ñi feebar yàlla wéral leen ñi génn àdduna yàlla xaral leen àjjana si barke sëñ naa Muhammad làmb li ñu boole dama nekk xale bëgg làmb parce que maa ngi dëkk gël maa ngi juddoo gël tàppe Ndate Diagne jabaru maam góor gi Njaay yàlla na ko yàlla yërëm dëkk gël tàppe muy sama tànt maam góor gi jaay di jëkkëram Modou Pouy amoon na soxna gël tàppe Habib Guèye gël tàppe la dëkkoon bari na ñu bari ñoo xam ne tey ña ngi ma am nag benn góor bu ñuy wax wee Sarr maamu Baara dëkkoon koñ bi ñuy wax HLM gël koñ bi wax Gitan moom nag si làmb ji la nekkoon benn bés ma ànd ak samay xarit mun dem marché ma yónni leen soow ngeen indi joxal ma ko sama yaay bu ngoonee ngeen ñëw làmb ja mu dugal leen ah ñu yóbbul ko soow mi jox ko yaayam boobu làmb jaa ngi am stade Assane Diouf boobu temps làmb ji stade Assane Diouf lay am war a arène Imit Badiane sax am na fa làmb wala ñu dem stade euh, wala ñu dem sand course bés boobu nag làmb foofu la doon am bu ñu demee foofu ah yàlla dogal bu ñu demee foofu yàlla dogal ñu seetaan ñu dem gisuñu góor gi ah, policiers yi di ñu ndax affaire yooyu ba beneen bés ñu dem fi nga xam mooy sand course fekk ñu gis ko mën nañ teel leen ñëw ñu teel leen ñëw ñu dem ñu bale foofu ba mu rafet ñu bind suñu tur ah bu ñu añee rek dañuy ñëw dem stade seetaani làmb loolu moo ñu boolee làmb yàlla di tudd may dem ba tëgg nañ sabar sax pour dugg làmb parce que pexe bu ne xale nag ay def rek pour seetaan làmb daan nañu seetaan làmb te xamuñu sax mbër yi bëri dem nañu sànd course dafa seetaan làmb te xamuñu kuy bëri biñ demee nag ba yàlla def ñu ràññeeku si nañ gis Mbaye Guèye gis Double nees xam nga xam ñoom moo Modou Pouy xam nag xammeewul ko nag si mbër yi xam Robert Diouf Mouhamed Ndiaye xam ñu bari si làmb si lañ commencé nag léegi nag ñu dem na ba am yenn euh, kii ñu commencé nag dagg billet cent franc ñu dagg billet cent franc commencé di dagg billet cent franc dem di dem dagg billet deux cent am billet téeméer loolu moo ñu boole si làmb ba léegi ni ñu nekk ay amateur nekk ay amateur dañuy waxtaanee ci sa photo bu njëkk euh, papa bi lan moo xewoon ak fan lañu jëlee bile photo waaw photo bi dama amoon euh, suma ay xarit yu fi ñëwoon dal hôtel bi ñuy wax teeru bi ñoom it euh, si wàllu làmb dañ siy yëngu parce que ay burginaay bay lañu ñu waxtaan si làmb yàlla dogal fii maa ngi foofu la photo bi amee daal. Euh, bii nag ñu ngi la gis nga ànd ak benn soxna euh, papa kii kat la. kii sama soxna la mu ngi tudd Ndeye Fatou Xuma ah, soxna suma sama xarit la sama soxna la sama xarit la moom laa àndal nii moom la foo ko fekk day ree nit ku baax la koo xam ne foo ko fekk daal. xamul mer day reetaan rek moom nag mooy sama soxna maa ngi koy nuyu di kontaan si moom di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér-gu-yaram moom daal sama soxna lu ma bëgg daal bëgg na ko lu ma bañ bañ na ko. mu mel ni dangeen doon génn ndax gis nañ ne yéen a ngi sañse macha allah te moom dafa mel ni li ñu koy gis ci sa wet tamit bari na li ngeen di ànd bari na. waaw fu ma jëm la plupart dinañ ànd fii dañoon dem làmb ja ñu ànd dem làmb ja eh, bari na loo xam ne nii fu may dem dañuy ànd même léeg bu ma amee ay rendez moom mooy dawal sax yóbbu ma si rendez yi may am moo may yóbbu souvent làmb moom lu may dem daal lu bari moo may yóbbaale sama chauffeur day toog moom moo may yóbbu ba guddi la mu am fu may dem ay rendez-vous moom moo may yóbbu ak oto bi waaw. Mamadou du Diécko kan mooy ay waajuram ak lan nga ñu mën a wax ci ñoom. sama waajur bu jigéen mu ngi tudd sama waajur bu jigéen mu ngi tudd ndeykan ñu koy wax ndeykan njuuli ndeykan njuuli boobu joor saar euh, njuuli géey jur njuuli géey njuuli géey joor saar joor saar bëkk pay moo jur euh, njuuli géey jaay papa mu ngi tudd Mamadou Kan dëkkoon fi ñuy wax Daaru Salaam si avenue Faidherbe rue Branchot euh, moom xëri jóoba ko jur Xëri Diop Ibrahima Ibrahima Diop Serigne Dakar moo ko jur sama pap mu ngi tudd Jibi Diagne dëkk Jekko Ousmane Diagne ko jur Ousmane jaañ Tooba Diagne la ñuy wax eh, Lissa Samb moo ko jur sama pap mu ngi tudd Jibi Diagne Lissa Samb ko jur. Eh, tey ak Lett Gueye Diagne. Eh, ñu lay woowee borom Sénégal ndax mën nañ xam lan moo tax ñu lay woowee borom. Sénégal wax borom Sénégal Sénégal mun naa ne ku baax rek sama mbokk nga. parce que xeet gi ma bokk xeetu léebu ñëpp xam ne ñëpp leen bëgg tey boo demee Tiwaawan nu fa fekk lébu bu fa sëy boo demee waa kër Seex na Seex Saddu am naa ndijaay bu ñuy wax mu saf Guèye boo demee moom ay doomam ñu ngi sëy si shérif yi sama am naa bàjjen bu ñuy wax Abbi Guèye ñoom ñëpp ay waa kër Seex na Seex Saddu donc boo demee tey Canabas sama bàjjen ma nga fa ay te Aïda Diagne Aïda Diagne boobu sëy naa ku ñuy wax sëñ Alpha Seck boo demee Touba sëñ Abdoulaye sëy nag sama bàjjan fu dëkk boo dem rek di nga fa fekk samay mbokk ñoo xam ne fii sama xeet la yoo xam ne lébu xeet bu am solo la te nit ñu baax lañu jikko wax nga ko sànq communauté lébu lañ ko xamee mu mel ni jikko rek penc la waa Jokko penc la fukki penc ak yaar moo tax je suis fier d'être moo tax tey lépp lu lébu yi nekk dama siy nekk parce que tey boo xamee ku mel ni dundooy suñu nijaay ju baax la mu ngi fi Ablaye Diop Matar noonu Doudou Wade sama nijaay la donc moo tax bari na lébu yoo xam ne tey yor nañ nombal tànk wala ñu ngi si dëkk bi dam leen naw parce que dama bëgg ne parce que samay mbokk lañu lu ñu nekk dama siy nekk moo tax lébu dafa am solo lébu dafa xeet gu baax la boo xoolee lébu yi tey ñu ngi ànd nekk benn li ñuy wax tànk ngoro wakaay bu ñu yof pour défendre suufu maam yi nga xam ni ñoo ko fi bàyyi woon d'ailleurs sax dégg nga état bi mu wax waxu suuf bu bëri parce que lébu yu bëri dañ ko nangu si ñoom te loolu war na leen ko delloo am na loo xam ne état Sénégal da ko nangu si ñoom loolu war na leen ko delloo moo tax président Macky Sall waxtaan nañu seen moom si lañ joxoon 3 hectares fii jox ñu di xol ba trois hectares te yooyu aussi lébu yi dañ koy xaar chaque jour pour ñu jot ko pour mën ko jox askan bi du pour jaay mais pour nit ñi dëkkee ko parce que loolu mooy yoon gi nga xam ne ni tey si lañuy daw. sànq yaa ngi koy jaale bi ñuy door bi la émission Gaston mu mel ni ñëpp xam nañ ko ci làmb ji ndax tey mbër yu bari bu ñu leen xamee yàlla ak jëmmam moom moo tax. Mhm. tey lan ngay seedeel ki nga xam ne mooy Gaston ak yan relation nga amoon ak moom. waa Gaston suma mag la sama xarit la vraiment ku ma respecté woon na ma trop ma respecté ko bari na loo xam ne lu bari dañ siy waxtaan muy nit ku baax nit koo xam ne man feebaram bi mbetteel laa si am te metti woon na ma trop ba dëgg yàlla ba mun ma ko woon xool parce que nit ku la koo xam ne ku baax la ku mën a def teraanga discrètement mën a dimbali ay nit ba dëgg yàlla mën a ñeme féete waaw ñeme dëgg aussi bu gisee dëgg da koy wax bu la tooñee sax mu xam ne moo la tooñ dina jël téléphone ne la baal ma maa la tooñ liy war ma ko def lii war ma ko def daal di ànd ak yow nga xam ne nit ku baax la loolu laay mën a seet nit la koo xam ne euh, li muy bañ mooy lii du am dana la incha allah lu ma mën naa ko def ba def ko donc nitu défi la la koo xam ne gagneur la aussi waaw bari na lu muy def si lu baax si dëkk bi si sport yëpp nag tey équipe nationale danaa jël alalam pour fexe équipe nationale gagné am ndam loolu xam naa si dara danaan fexe képp kuy xaritam loo yor mu bëgg nga gañe xam naa si dara donc nit ku baax la damay ñaan yàlla yàlla na ko yàlla xaar àjjana jaale ko ay njabootam soxnaam ay soxnaam muy ndey awo muy ndey mareem jaale ko ay doomam di ñaan yàlla teg si ñoom loxo xam ne am na ñaari soxna yu baax yoo xam ne vraiment jege nañ ko woon jàppale ay njabootam ku ñeme njaboot la aussi ku ñeme fere si ay doomam moo tax yàlla na ko yàlla lafal catu bàmmeel bi nga yëgee eh, dëddoom lan nga yëg metti metti sant yàlla ñaanal ko ba pare waaye sama xol tooy na ba jéene naa ay rongoñ parce que vraiment dafa am dama ko bëggoon lool sama xar yu bari xam ne ne ko bëgg Gaston laa daaw ma nangu ko ko wax dara sama kanam nit ku baax la woon wax dëgg yàlla bii la photo nag ñu gis la nga ànd ak Pape Abdou Fall lii mhm. ba lan moo xewoon ndax dafa mel ni ci ab xew-xew ngeen nekk eh, déjà ak sa relation ak moom lan la woon. Pape Abdou sama xarit la si parce que bu yàlla dogalee muy ñëw pour tëgg làmb xaw ma ko woon dama jénn boobu maa ngi dëkk HLM Grand Médine ma jénn rek gis ko mu nuyu ma mu ne man maay Pape laa ah man nga am ah, bo mu ne ma foo jëm man boobu maa ngi dem fu ñuy wax di def yëfu faaleen fu ñuy wax les ambassades. mu ne ma kañ dem ñu ànd waxtaan si boobu léegi nag sama xarit la lu ma nekk mu ngi si moom it lu ma nekk mu dina ma ko yëgal dañ si waxtaan sottante si xalaat photo bii sama kër la woon parce que boobu euh, Fallou njaay moo ma tuddee làmb ñi nga gis ki sol mbaxana bula bi sama mag la bu ñuy wax Ousmane Sarr mu ngi ànd ak euh, Abdou Mbaye Pape Abdou Fall ngi toog ne kële Ablaye Ndiaye la donc sama ay Euh, mag ñoo fa nekk bëggoon doon ànd ak man pour ñu dem làmb ja waaw. mu mel ni poste bi occupé muy président wu amicalu amateur de lutte yi dafa rataxal sa diggante ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yore làmb ji muy producteur yi waaye tey yan jafe-jafe la amateur yi di jànkonteel. waa làmb léegi nii ñëpp xam nañ ne dafa am lu fi am loo xam ne mosu fi am mooy guddee làmb day dem ba 11h moins wala 10h et demi te loolu yanul maanaa moo tax loolu amateur yu bëri dematuñu làmb man mi di wax gën naa la parce que mënuma toog làmb ba ay vingt deux heures vingt trois heures dañu waxante dëgg te agression bi bëri na bari waaye boo xam ne il faut ñu jël si ay mesures ñuy ñaan ministre de l'intérieur gouverneur de Dakar les préfets nañ taxaw jël ay mesures wax a CNG ñu xool ñu ñuy canaliser làmb ji parce que làmb ji guddee bi arrangé wu làmb ji guddee bi arrangé wu Sénégal guddee bi arrangé moo gën ëllëg leneen am fa ñu nekk fi di wax nañu xool nu ñuy régler làmb ñu def ko moo gën. waaw ñu gis ni ñii ñaari mbër lañu kenn ki dafa mel ni daa gañe ba keneen ki yëkkati ko lii papa yan yan mbër ñoo ci nekk nii ak kañ la woon. ki Mbaye Guèye la le tigre de Fass fi entraînement la woon rek mu mu mu tungoog Moustapha xam nga Moustapha Guèye mooy rakku Mbaye Guèye ñoo bokk ndey ak baay Mbaye Guèye nag c'est le champion moom mooy la ñuy wax le tigre de Fass macha allah yàlla ko yàlla yërëm na ko yàlla xar àjjana. champion bu mag la woon ku bañkat la woon kii tey xam nga ne moo tax làmb am million commencé Mbaye Guèye ku ko xam-xam ne bëri na ak Moussa Diame bëri na ak Touba Lees bëri na ak Robert Diouf bëri na ak Boy Pambal bëri na ak Moussa Diame bëri la woon bëri Boy Bambara bëri na ak Sa Ndiambour fa la ñu tuddee ko lu tigre de ku am jom la woon mbër champion la woon mu am rakk tamit boo xam ne Moustapha Guèye champion la bëri na ak Mor Fadam bëri na ak Mohamed Ali bëri na ak Aline grand champion bëri ku ñuy wax Ibou Ndafa Moustapha Guèye bëri na ak mbër kaamil la donc moom la fopp noonu mooy le nouveau tigre de Fass kii lañ doon wax ñaañi gay gànn naa moo bëri ak Mor daanu Youssou Ndour way ko way bu rëy bi ne ko yaa daanu mel ni yaa daanu yow Moustapha Guèye moom mooy borom j'attaque je cogne et je mhm. kii dafa mel ni ba tey Mbaye Guèye la. Mbaye kii tey am na ñoo xam ne daaw ñu ko seetaan mu mel ni Sega Sakho maa ngi koy nuyu di ko ñaanal wér ak gudd fan Mbaye Guèye lay supporté mosu ko seetaan bu Mbaye Guèye mise en train si biir làmb ji ba pare ba nga wóor ne soufflé moo des bu defee jeu de jambe yooyu muy def rek ñu bari dañuy ñibbi toog seen kër ne Babacar Sadikh daan na ñu ñibbi nañu am ñoo xam ne mosuñu seetaan Mbaye Guèye muy bëri. maa ngi nuyu tamit benn xaritam bu mu laa àndal Ndioba Diaw moom it maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla wéral ñoom ñoo ñoom ñoo laa ànd Ndioba Diaw tamit ñu ngi koy jaale Gaston xaritam la woon kon nag mbéy gee ngi nii le tigre de Fass ngi nii taxaw. ah kii nag mooy le grand champion. kii Falaye Balde la tudd mbër kaamil la macha allah bëri naag bekkaay un bekkaay deux kii amul mbër bu mu bëriwul kii kii dañu leen wax ne bëri si moom la yem moom nag am na ay doom. ku mel ni Pathé Baldé euh, euh, ku mel ni tey Jules Baldé ku mel tey mooy caata ñu koy wax Ama Baldé tey ñëpp xam ne sampion la Jules balde ñëpp xamoon ne sampion la Pathé Baldé ñëpp xam ne champion la champion baa ngi nii nag mooy Falaye balde fii kii fa xale Pikine yëpp jaar ñoom Papa Diop mbëru Pikine yëpp mooy seen mag mooy seen kilifa ba tey ay école yu bari am Pikine grace à Falaye Balde. Falaye Balde ñu bari xam nañ ko ci làmb gi waaye yaakaar naa ne doomam yëpp Ama Balde lañ ci gën a xam hmm. tey naka nga gisee avenir Ama Balde ci làmb ji. waaw léegi Ama Balde moo xew rek mais xew àdduna moo demee noonu Ama nag xale la boo xam ne bu dëgg yàlla magam yi ñu ngi koy encadré ñoom Gilles ak ñoom ñëpp champion la tous les temps mbër la macha allah parce que bàyyam daan na wax ne lépp lu ma ñàkk si làmb sama doom ji moo koy indi. kon wane na woon ne moom am na doom boo xam ne sampion la muy euh, ñuy ñaan rek ama di ko bàyyam doon ñaanal yàlla na ko dal ñu koy ñaanal mu nekk sampion parce que vraiment war na ko mérité parce que bàyyam ñaanal na ko. Euh, ki nga xam ne nag mooy docteur Alioune moom mooy euh, président CNG yan relation ngeen am. waaw Alioune Sarr bon relation bi ñu am mooy suñu mag la nekk si làmb ji. jiite ko 94 yàlla dogal man it ma ñëw nekk président amateur depuis 2000 fekk ko si ko ñu ànd di liggéey si làmb xam nga nag làmb nag nit ku ne da ngay libéré daan naa ko critiquer dina def dara ma ne ko li ànduma si ñu koy ñuy waxante mais lépp si wàllu làmb mosuma ko dépassé mosuma ko wax bu ñaaw musuma ko wax dara loolu si wàllu làmb rek laa ko daan critiquer. bon yàlla dogal loolu daal lañ seq mënu ma ne leen nag sama xarit la du sama xarit mais daal seqoon nañu làmb euh, muy sama mag ma respecté ko lool musuma ko wax dara loo xam ne da koy déranger waaye nag daan naa ko critiquer nag critique yu metti daan na si gis boppam ma ne ko nag bañuma la damay wax dëgg rek te yàlla tax waaye bañuma la waaw loolu lañ seq mu mel ni ragaloo jël position soo d'accordul danga nga koy wax ba ci sport MMA bi nga xamante ne bëggoon nañu ko indi biir Sénégal bokk nga ci ñi ko njëkk a bañ lan moo ko waral. waaw man bu ma d'accordul dara damay wan ne d'accord ma bu ma àndee ak nit damay wan ne li nga wax ànd naa si bu ma àndul li nga wax dama naan carrément ànduma si awma dara lu may ragal sama dëggu sama ni ma mel daal mel naa ko nit bi tey làmb boo defee loo xam ne du yoon damay wax carrément lii amul lii du yoon man laa mel xool naa ne sport la boo xam ne suñu maam yi lañ naan ko def jël ay ay noir tubaab bi tëj leen ku dee ñu jox la ay xaj di la def yoo xam ne dafa métti ma ne lii du sport te it sport la boo xam ne réew yu bëri lañ ko bañ kon pour pourquoi Sénégal ñu koy nangu te man dama gëm na ñun am nañ cosaan muy làmb nañ gëm suñ cosaan boobu travailler ko ba di ko yóbbu fu nekk mbër yi dafa bëri moo gën important ñu jëm jël sport jàmm pour mën ko adapté suñu dëkk waaw loolu laa gis ko le sport man dama gëm suñu man dama gëm suñu culture. dama gëm suñu aada ak suñu cosaan looloo tax ma koy defaan looloo tax may defaanal làmb. Euh, photo bi nag dafa mel ni gisuma la ci ñii ñan lañu. waa ñii samay kilifa lañu muy Mbaye Guèye yàlla na ko yàlla yërëm le tigre de Fass Touba champion olympique ki mooy papay Balla Guèye moom it yàlla may na ko champion kii taxaw tamit mooy Birahim Ndiaye. mooy trésorier des sages mooy moom it sama mag ju baax la depuis xale ma xam ko si làmb ma nekk xale mu xam ma moom it bu dëgg yàlla muy nit ku baax di ma conseiller di nitu dëgg moom tamit di nu homme de principe lu mu d'accord daan d'accord si lu mu d'accord mu ne d'accord la si dëgg rek lay wax aussi moom tamit maa ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér. waaw euh, bii nag làmb la ki nga xamante ne rek moom mooy bombardier la gis léegi muy touche. Euh, loo ñu mën a wax ci làmb bi. waaw làmb ji dafa bari woon coow ñu bari ne woon làmb day tëj parce que Bombardier dina rey Balla Gaye 2 man ma bokkoon si ñuy waxoon ne Balla bee 2 mën na daan Bombardier làmb du tëj donc bi ma koy wax aussi bari woon na ay mag yoo xam ne ñoom bi ñuy seetaan làmb sax man judduwuma ma waxoon leen ko waxoon naa ko benn rajo Walfadjri boobu Ndiaye Dos mu ngi dund yàlla dogal. bi ñu mbay Fall bi ngi nekk Gaston production mbay Fall yàlla dafa def yaayam génnoon àdduna ñu demoon cees bi ñu demee cees tombé làmb ji am foofu yàlla dogal ñu koy jenc si armeeru suñu maam amal njëgal yàlla yàlla lokk leeram yaay Mbaye Fall itam yàlla ko yàlla xaar àjjana ma ne Nawel Ndoye ne tey làmb si lay tëj ak Mour Diop ñooñu nga xam ne làmb rek lañu xam ma ne ah man de gisuma loolu ma ne leen poids am na solo de mais technique bokkul ak poids boo nga am expérience technique boo amee yenn poids yi mbër mu ne mun nga ko daan boobu même ay mbër newoon nañu Balla Gaye mii Bombardier da koy daan man gëmoon naa ne Balla Gaye mën na daan bombar ji moo tax keroog boobu dama si kontaan bés la boo xam ne daf ma neex parce que wax naa loo xam ne ñu bari weddi nañ ma yàlla suñu borom def mu am mooy Balla Gaye mën na daan mbër mu ne noonu la demee woon mu mel ni xam nga làmb ndax da nga doon euh, takk la ngemb gi yow itam. waaw xam naa def làmb rek parce que daan naa am bokkoon naa école de lutte lutte gréco-romaine muy lutte olympique am na tubaab bu fi nekkoon bu ñuy wax Rosses temps booy bambara bi entraîneur la woon donc am licence sax di ko duggee làmb boobu ku ñuy wax Matar yàlla na ko yàlla yërëm moo yoroon xale yi ñun ñuy dem di ah, am naa fi xam naa fi ñu bëri xam naa ñoom Aline John mu ngi Italie ñu ay champion la ñu woon. Amadou Kassi Diop bi ñoom Ambroise Sarr ñoom ñëpp dama naan dem si di seetaan di gërë ko di xool compétition yi dem naa ba Thiès seen regroupement Tëngéej waaw ñoom ñëpp xam naa xam naa li gërë ko olympique. bii tamit mu mel ni euh, Mbaye Guèye moom moo nekk sama ndeyjoor. waaw bii Mbaye Guèye Double Less euh, jubilé la woon jubilé boobu. Petit mbay action 2000 moo ko organisé woon boobu Youssou Ndiaye mooy euh, ministre des sports yàlla dogal stade bi amoon problème ñu ne làmb ji du fa am ma seeti ministre bi mu ne ma làmb ji day am ba pare stade bi kenn du ko fay daal di yëkkati xaalis jox Petit mbay may ko ñaari mbëri may leen ay mayo may ne ñii mérité nañu vraiment waruñu fay stade waruñu fay sax soxla stade ñu leen koy loué. parce que def nañ lu ne Sénégal kii nekk na champion d'Afrique ñaata yoon dem na Mbaye Guèye c'est le tigre de def nañ lu nekk ci làmb daal kay loolu petit mbay maa ngi koy nuyu nit ku baax la moo organisé woon seen bës bi muy jubilé diggante Double Less ak Mbaye Guèye. vidéo bi nag ñu gis ci euh, ki nga xam ne moo nekkoon euh, premier ministre di Amadou Ba nekkoon tam candidat ci élection présidentielle yi ñu génn. Euh, ndax loolu dafay firndeel ne Doudou Diagne Diecko moom itam homme politique la. waaw Amadou Ba euh, bi ma ngay xam boobu yàgg na boobu mu ngi nekk chef entreprise après mu nekk euh, directeur domaine fiscal ku ñuy wax Abdoulahat Ndiaye moo taxoon ma xam ko mu ngi France maa ngi koy nuyu boobu ba léegi nag sama xarit la bu dëgg yàlla yàlla dogal suñu borom. ba mu nekk directeur général des impôts ba mu nekk ministre de finances bii dafa ñëw ne leen sama xarit la daan ne ma sa biir bu rëy bi di ma tooñ ah, bo suma xarit la yàlla def nag ah, ba mu ñëwee tamit jël parole mu xamal nit ñi ne du jaañ sama xarit la ba mu ko waxee tamit nag sonal na ma lool sa làmb ji parce que ku nekk daf may woo ne ma dama bëgg gis Amadou Ba ma ne ah man de gisuma ko dégguma ko mu dégg yàlla parce man tamit du sagu du ma nit koo xam ne ma la démb maag président de la République ñoo reerandoo te damay fen man du ma genre boobu bu ma bu ñëw nit ne ma diw sa xarit la ma gëj la gis dama naan naa ko gis boo ne ma téléphone ma ne la yàlla woo naa ko wuyuma la surus parce que du ma fen yàlla def ba ñu ne nit ñu bari woowee noonu bi muy campagne ñu bari woo nañ ma ne ma la yomb a gis Amadou Ba ma ne ah man de gisuma ko numéro ma ngi nii boo leen ko soxlaa ngeen woo ko man gisuma ko dégguma ko ba campagne bi jeex ma Amadou Ba dégguma ko bu dëgg yàlla loolu laa lay wax man tamit du ma si ferante sama xarit la nag parce que xarit moom kenn du ne diw du sama xarit sama moom waxoon na ko boppam man nag bu ma tànnoon toog ne Amadou Ba mii sama xarit la nit ñi mën nañ leen may fen moom moo ñëw sa làmba ja ne leen du jaan jekkoo sama xarit la moo tax ma wan ko wax waaye man du ma tëb ne diw kilifa sama xarit la day mel ni intérêt tax te man doxuma si ay intérêt damay ànd nit te yàlla tax ci photo bi ñu gis ci ñeenti ndaanaan ñeenti ñoo xam ne kenn ku ci nekk <coughs> am na tàkku saanam gis naa ci Mike Tyson gis ci Yekini gis ci euh, kii di Balla Gaye gis ci Modou Lo mu mel ni ñoom ñeenti ñi ñëpp kenn ku ci nekk rek takk na titre roi des arènes waaw xam nga roi des arènes si ñii Tyson lañ ko njëkk wax après ñu wax ko Yekini après ñu wax ko Balla Gaye mais fii tamit waroon ngeen fi indi Bombardier ak Eumeu seen comme que affaire roi rek la ma wax la tamit parce que ñoom ñëpp ay roi lañu Bombardier nekkoon na fi roi Eumeu Sène nekkoon na fi roi léegi nag Modou Lo moom mooy roi bi ñii ñëpp ay champion lañu def nañu seen ndaw bëri nañu fu ñu war a bëri daal nañu ñu daal leen ay champion kaamil lañu Yékini ku ko xam xam ne macha allah mbër la maa ngi koy nuyu di ko félicité di nuyu tamit Mohamed Tyson di ko nuyu di ko féliciter di nuyu Balla Gaye di ko nuyu di ko féliciter di nuyu Modou di ko encourager parce que ñii yëpp ay mbër la kaamil nañu wax dëgg yàlla yàgg nañu doxal làmb yàgg nañu bëggal làmb Tyson bu mu ñëwee dafa indi lu bees indi tëgg bu bees indi fecc bu bees li ñu naan dafa indi euh, style boppam Yékini tamit noonu Balla Gaye bi noonu Modou Lo noonu kon ñii exemple lañu ñuy bëri si sport si Sénégal maa ngi leen nuyu di gërëm dinañ leen mu mel ni ni moo gën a yàgg ak lii di euh, couronne bi. waaw moo gën a yàgg nag loolu yàlla dogal. yor na ko ñaata at. moom xaw ma at bi de mais yàgg na moom mu dëgg yàlla yàgg na moom nekk roi des arènes. bi ñu jógee ak euh, ki nga xamante ne moom mooy Amadou Ba gis nañ tamit euh, kii di Matar Ba lan moo nekkoon sa relation ak Matar Ba wala lan moo nekk sa relation. waaw Matar Ba maa ngi koy nuyu Ba nag. Euh, balaa ñuy nekk xarit daan nañu laalante parce que man tamit bu waxee loo xam ne du noonu damay taxaw ne monsieur le ministre li nga wax du noonu parce que bi muy doog a ñëw Gaston moo benn guddi fekk boobu dañoo indi Matar Ba ministre des sports ñu laaj ma ma ne est-ce que du nekk Matar Ba Alioune Sarr Alioune la dëkk Matar Ba dëkk Fatick est-ce que du nekk affaire Fatick Fatick. léegi euh, yàlla dogal Gaston woo ma benn guddi ne ma Matar baa ngi ni ministre dama bëgg ngeen xamante jàppante tout ça bàyyil dëgg naa sax ngay wax ma ma ko maa ko wax de mu nuyu Matar ba nuyu ma ne man dinaa la woow ma ne ko d'accord yàlla def woowu ma ma ne bu defee bu defee amee si làmb ji ma wax wax sama dëgg ba yàlla def euh, benn bés ma dem Fiera Pape Abdou Fall moo ko organisé woon ma di fa jënd daf yëfu faaleen jënd man nag dama bëgg lu ñu lu ñuy liggéey suñu dëkk bi ma dem di jënd ceeb bi ñu fi bayee yàlla dogal Pape Abdou Fall ne ma wuyul muy Matar Ba man ah monsieur le ministre na nga def ma ne ma ah, ma ne ko ah yow man kat yaa ma waxoon nag may woo ñu waxtaan woo ma man kat boo ma wooyee te waxoo ma dara man tam boo jéenee si kii bi man damay wax sama xalaat mu ne ma waaw dinaa la woo ma a ko amul problème. Gaston si boobu ma ne ko waxoon naa la Wóoldu Diagne présenté naa la ko ne la waxal ñi ngay déglu fii yëpp moom dëgg la lay wax donc boo ko woowee di ngeen waxtaan di ngeen waxante dëgg depuis loolu nag ko dëgg yàlla muy nit ku baax boo xam ne boo ko xamee da nga naan yéex naa ko xam doone mukk rëccu naa tax ma xam ko muy nit ku baax boobu ba léegi ñu ngi am ay jàmm ba muy def dara dina ma wow laaj ma sama xalaat ma wax sama xalaat man tamit lu ma dégg loo xam ne war na ko defar defar defar da nit day am problème ma woo ko ne ko diw dafa am problème te yow war nga ko mën a dimbali mu ne ma àndaleen ñëw ma ne ko non bàyyi ko moom mu ñëw mu ne ma déedéet boo ñëwul du ma ko ñëwul mu yóbbu kooku kooku ma mu dimbali ko. vraiment nit ku baax la si ministère de sports maa ngi ñaanal yàlla li mu doon def si lu baax yëpp yàlla fay ko nit ku baax la. nga dal di teewal nag ay amateur lamb euh, muy sport tàggatu yaram déjà naka nga gisee yeneen tàggatu yaram yi nga xam ne moo am Sénégal ndax dañoo jàpp ne bu football bi daal à part ji xëy na moom moo ci tane waaye lu ci mel ni athlétisme lu ci mel ni yeneen basket ak yeneen discipline yi xaw nañoo sooxee. sport moom bu la kenn nax. ku nekk ak li nga bëgg basket amoon na fii ba léegi nii am macha allah ñu ngi ñaanal duwaan sax mu ngi basket ñu ngi koy ñaanal mu jël coupe bi leneen li si am mooy euh, làmb mu ëpp popularité Sénégal loolu ku nekk xam na ko uti yàlla apart part ça football ak làmb mu sport bi gën a dox parce que aussi am nañ ay clients athlétisme nag damay ñaan yàlla mu doxaat parce que vraiment ay champion ñoom Jaba ñoom Moussa bari na Charles bari na ñoo xam ne tey ay champion la ñu woon ñu ñëpp tey vraiment stade daraan fees dell stade Iba Mar même sànn course ma mën leen dem ne leen dem seetaan sànn course mu fees dell ak ñuy daw donc loolu aussi war na mën a gën a ñëwaat muy mooy sponsors yu ñëwaat euh, gën ko jàppale parce que ñoom dañu et puis ville de Dakar nag daan jàppale Pape Diop mu fi nekkee maa ngi koy nuyu moom vraiment maire bu baax la woon danaan jàppale sport bi danaan jàppale làmb danaan jàppale football daan jàppale association des journalistes ñëpp dañ naan leen jàppale si mairie bi ku nekk gis sa bopp Pape Diop yàgg na pare ne ay vraiment ay ay journée athlétisme yoo xam ne ay 4 avril ah jox ay billets beaucoup de athlétisme ñu ñëw fii Sénégal di daw fii si eh, stade Amitié vraiment moom daan na jàppale trop athlétisme. ñu wax ci leneen muy. Euh, alternance bu bees bi gis fii ci euh, Sénégal euh, Bassirou euh, Diomaye fay nekk juróomeelu président bu Sénégal tey déjà naka nga gisee le fait que ñu tabb ko au premier tour ndax loole guléet la fii ci Sénégal. waaw maa ngi koy félicité moom président de la République Diomaye Faye xale bu baax la xamante ne ñu imponi dañuy nuyoonte rek muy nit ku baax gis des Birame Souleye xam naa ko. Euh, Cheikh Diba ministre de finance xam naa ko maa ngi koy nuyu di leen félicité di nuyu aussi premier ministre bi ak ñi nga xam ñoo ànd ak ñoom ñëpp membre gouvernement bi yëpp xam nga àdduna moom euh, lii day loo xam ne suñu mayum suñu borom la xam nga tey nit nekk kaso ñu tëj la ñëpp ne yow la ñuy voteel kenn munu si dara yàlla moo leen kon may yàlla nag moo leen may loo xam ne musul am Sénégal Afrique sax laay wax musu fi am Nelson Mandela sax amul lii adduna bi yëpp fu Sénégal nekk ñoom ngay voteel même ku dul sax da di jàppale man dem naa fi Paris dem naa fi yeneen dëkk dañ lay wax nela la ñun Ousmane Sonko lay àndal loolu nag may la suñu borom moo leen ko may moo ko may président Ousmane Sonko nga xam ku mu àndal nga gañe képp ku mu ne kii la kooku dina gañe loolu nag moom musul am Sénégal waaw miracle la boo xam ne may mu suñu borom na daal yàlla mooy jël doomu aadama jël xol yi dugal si doomu aadama xol yépp nag si Ousmane Sonko la ko dugal yàlla jox leen ndam yàlla na leen jig mu jig Sénégal lépp yaakaar gi eh, suñu borom am dugal ko si soppe réew mi yépp yàlla ne ko yàlla wane Sénégal mu ànd ak jàmm ak xéwal loolu lañuy ñuy ñaan yàlla defal leen sutura. justement yaakaar la askanu Sénégal am ci ñoom ba tax ñu teg leen ci boppu réew mi tey yow lan ngay xaar ci ñoom. man li may xaar ci ñoom rek mooy nañuy pour man ku mel ni met dundoo yi nga xam ne tey soxlawul alal soxlawul nomination soxlawul dara liggéeyal Sénégal rek moo ko ñor gis nga li mu def ci élection yi. liggéey bu am solo la fi def ba nga xam ne xeex amul dara amul bërki dem wax na si suuf si lan la lu waa wax si suuf si ku mel noonu war nañ ko mën a jël di ñoom ñuy waxtaan ak moom dina am lu bari lu mu leen orienté si réew mi parce que moom bëggutul dara buggul dara lu Sénégal la bëgg bërki dem ba muy wax Macky Sall dëgg fii na ko waroo def troisième ak ñëpp dégg nañ ko bërki dem dem bañ naan ko Macky de 2 2 avril day bàyyi nguur gi dem mu ne leen du ko bàyyi article 36 ci constitution bi lii la wax day toog ba def passation loolu moo ko fi indi kon yow ku mel noonu koo xam ne tey day wax dëgg te yàlla tax waxul benn dëgg waxul dara ngir intérêt boppam ñoom war nañ ko xool déglu ko ba nga xam ne lépp lu ñuy jël mu waxtaan seek ñoom parce que moom Sénégal lay liggéeyal te Sénégal moom ñoom it moom la ñuy liggéeyal ñu waxtaan loolu dafa am solo jël borom xel yi di waxtaan ak ñoom ak ñi nga xam-xam ne nga xam ne soxlawuñu pos soxlawuñu alal soxlawuñu dara li ñu leen soxla mooy dañuy wax dëgg te yàlla tax wax li nga xam ne mooy suñu borom moom la wax ak Sénégal yi ku ko dégg xam ne li dëgg la ñooñ dafa bari dafa baax ñu leen di déglu parce que déglu ay naafeq wala nitu intérêt comme tey suuf si ñu ne tey suuf si ñuy wax si wetu géej gi yaa ngi dégg suuf si ñuy wax si wetu géej gi dafa am loo xam ne tey indi wax. te loolu baaxul parce que ay nit dañoo dem leb banque ñuy investir hôtel yi dem leb banque pour investir benn nit depuis Abdou Diouf mu ngi xeex depuis Ablaye Wade depuis Macky Sall bëgg ñu toj ay yëfu jàmbur mais loolu baaxul alal jooju di yàqu tey boo arrêté liggéey ñaata nit ñooy toog du ñu liggéey di am dara lu ñu yóbbu seen kër nañ ubbi xam ne lii àdduna la yàlla moo ko def ñoom ñëw nañ ba pare ñii di wax nañ bàyyi lu ñuy wax intérêt personnel. tey wax intérêt réew mi c'est très important. dañuy nag génn ci cadre boobu yëpp fàttaliku tuuti euh, tey nekkoon nga xale ba nekk mag am nga jaar-jaar tey ba ñu doon raconteel anecdote bu la gën a marqué maanaam loo xam ne def nga ko ba pare ay ree fekk la ca wala tey lan nga gënoon a bëgg di def bi nga nekkee xale moo xam luñ la léebal la wala loo dund la loo xam ne mën nañ mën nañu reetaan loo. <laughs> waaw ànd naa ak sama benn xarit bu ñu wax Jean Ndongo Thiam. dafa tuuti nag mais moomu mag ñu dem làmb ja mu dagg billet deux cent ma dagg billet deux cent ñu ñëw am na benn grand bu ñu doon wax euh, Philippe bu naa nekk si bunt bi mu ñëw mu ne yow doo dugg da nga dagg billet mille francs e booy kaay ma ne kuy booy mu xëcc ko bëgg ma xëcc man tamit na ko kii du booy moo ma mag ma ne kii moom ma mag nga koy booy kii moom ma mag mu ne ma non non non kii yaa ko mag ma ne ko kii de du dugg ma ma mam kay du dugg moom loolu lu ma lu ma lu may lu may reetaan la chaque jour bu ma ko gisee mën na ko yow keroog ba ñu demee làmb ji lii nga def affaire yooyu. mbaa xeexoo fa rek. déedéet jotuñu xeex sama xarit la sama mag la sama xeex. <laughs> balaa ñuy jeexal dañuy wax ci koo xamante ne ku xam làmb xale yi juddu barki Demba Ndiaye sax amaana dégg nañu baatam muy Doudou sekk yaay kati mu yoroon voix bu extraordinaire tey lan ngay wax ci moom. waaw duudu yàkkat yi ku dëkk euh, Dakar di lébu xam nga ko parce que kasak ñu bëri léeg sax damay dox mu mu gis kenn ne ko jox ma yow maa la kasagal ma ko ay eh, duudu ki kilifa la léegi mu ne maa ngi toppal fële yow sax maa ma ne ko déet man bokkuma man kasaloo ma kasaloo bokkuma si donc muy nit ku baax koo xam ne vraiment danaa neexal làmb léeg mu dem ba combat bi lëj mu jël micro bi way ñaari mbëri seen yaram tàng ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla xaare àjjana di ko man chaque jour am koy ñaanal di si gërëm tamit ministre de la culture euh, Mbagnick Ndiaye benn bés dafa ma woo woo Bécaye mbay mu ne président dafa bëgg ñun utal du sec cassette ñu dem wax ko ñu ñoo yóbbu du sec si Papis konaare mu de mu produir ko cassette ñu jox Papis jox ko cassette yëpp moo ko jaayal boppam fu nekk mu dem jaay defal ko proche kooku tamit ñu ngi koy gërëmee Manick Ndiaye ak président de la république vraiment loolu defal nañ ko du sec ba tey cassette ba maa ngi koy dégg si ay rajo yu bëri te loolu mérité na ko parce que vraiment ñaata at mu nga toog di way amul cassette bu keroog rek boo dégloo coon sec nee na ñoom ñaar ñoo daan jóge pikin di wër si mbappat yi di way donc ku yàgg way la du sec ku yàgg way la ku xam way xam cosaani way bu la woyalee yonent bi sallallahu alayhi nga ne kii xaadir wayu wayu tabala la mën bu la woyalee làmb nga ne wayu bu la woyalee wayu lépp nga ne macha allah ñu ngi ñaan yàlla xaar ko ak bu ma koy déglu sama xol day sedd macha allah. tey nag lan ngay tàggatoo mu mel ni si nañu rek fi ñu war a tey jotaay bi. tey li may tàggatoo mooy gërëm leen 7TV eh, ñaan yàlla jàmm am fi di ñaanal amateurs yi di nuyu suñu ay papa yi fi des nga xam ne tey ñun ñoo ñu dénk. muy góor gi Moussa Thiam yàlla na yàlla guddal fanam alaaji Mbay Ndooy Wakaam yàlla na yàlla guddal fanam ak ku ñuy wax Mbay Thiam lébu moom tamit yàlla yàlla guddal fanam ak ku ñuy wax Mamadou Sarr suñu pap boobu nga xam ne maa ngi koy nuyu di ko ñaanal wér ak Saliou Seck bëgg jàmm ak Mouride Gueye ak Maam Góor Fall mi nga xam moo nekk Parc Lambaye mag ñooñu tey ñoo fi des maa ngi ñaan yàlla mu guddal seen fan wéral leen yokk seen kàttan ak nag ngeen may ma ñaanal tamit imam mbaay imam Ablaye mbaay mu ngi nekk uh, rajo di ñaanal réew mi di def lu baax moom it amateur la daanaka lu seetaan waaye télé ba seetaan imam ñu ngi lay nuyu di nuyu ñëpp di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi suivre émission bi maa ngi lay nuyu di la ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal ñi feebar nekk hôpital yi yàlla yëkkati leen si barke yonent bi ñi nekk aussi si prison yi yàlla delloo leen seen sago di ñaanal réew mi borom réew mi di ñaanal nag ministre des sports mu àggaleeg euh, li fi Matar Ba bàyyi ba mu am ba ñu amaat beneen coupe d'Afrique amaat qualification coupe du monde làmb ji dox ay champion du monde am fii si ligue gréco ba euh, fi nga xam ne tamit ñu ngi dem euh, si jeux olympique bi nga xam ne moom la ñuy def Sénégal yàlla may si ndam Sénégal yàlla jàppale ko ñu am si ay médailles yu am solo surtout ñun làmb tamit ñu raw si médailles yi yàlla may ñu médaille ñu ngi lay euh, jaajëfal seen émission souvenir souvenir amoon mbégte di dalal Doudou Diagne Diécko di président des amicales des amateurs de lutte du Sénégal di leen dig daje beneen numéro souvenir souvenir sur la 7 TV la télé qui nous ressemble et nous rassemble